mooy ma nag xam nga su ndoxtal dafay leex ma laaj la beneen mbir tamit euh, lu tax ñu war a wateel Bassirou lan la ëppale yeneen candidat yi waaw xam nga Bassirou dafa spécial ndax lu tax mu spécial mooy ki ñu tànn hmm. te bëgg ko moo ñu ko tànnal déjà loolu muy premier atout bi Bassirou am bu keneen amul hmm. waaw dina am ñu ne ah kay am na ñett ñu mu tànn déedéet am na yeneen candidat mais mom ci kattanu suñu borom, muy Ousmane Sonko mo yëkëti cadeau, yëkëti vidéo enregistré wax ñu kan moy Bassirou. bu ñu gëmmoon sax suñu bëti dinañu gis parce que nak nit ki ku bëgg ki la bëgg nga bëgg ko. loolu la Yalla dogal parce que motax sentiment de de d'amour ak affection fay propager ou ça se partage. loolu déjà premier atu la bu Basirou am mais au-delà de ça Bassirou dafa am. Ben, ben, cursus identique à celui de Ousmane. absolument Bo xamantene ne peut-être yalla moko beugé won non. Hmm. xëy Ousmane moko mag ay at tuuti barewul. Mhm. ndax il est de 1980. Mhm. ndaw la Waye ndaw bu nangu doon ndaw la ndaxte du ndaw rek mo xamni ci at dafa nangoo nek ndaw président Ousmane Sonko mu di ko yónni ci yeew yi mu di ko taxawal mu yoni ko ci mu fa taxawal.

ñun fekk nañ ko plus d'une fois mu am ay ñu koy mu recevoir Dakar day taal autom dem ba ñu fekk ko kon am complexe ci li mu mhm. bañ dernière élection yi musul bëgg affaireu falu ah. mhm. bu ko mu Dakar mais dafa dem ci goxam mhm. pour ko ngir falu def parce que il est conscient de li am ci ci milieu rural bi muy problème mu suuf yi nga xam ni mhm. ay waajuram ay maamam dañ ko am mu dund Bassirou nekk l'image même du prototype sénégalais bu juddu ay waajuram bu ñu xëyee dem tool di bay mu gis des agro-industries ay nit ñu am alal ñu ñëw di fokkati suuf soosu ci loxo askan woowu. Mhm. ñu jàpp ni Bassirou mi bis bu faloo xam na lan mooy inégalité xam na lan mooy injustice parce que ñëpp gis nañ taxawaay bu mu taxaw ci Ndingler. Ndingler absolument ñëpp gis nañu ni mu ni mu taxee ba Ndingler ku mel ne man dugg si. parce que xëy na bu ñu ko bàyyi woon mu nekk diggante njag Ndingler kese ak waa wa wa waa Sedima xëy na mbir mi du demee noonu mais moom daf ko jël accaparé xeex bi. ba ñenn ñi sax naan affaire politique la alors que du loolu. ndax man dem naa ba foofu maa ngi nuyu góor gi lay John. di ko wax nag ne ko. <laughs> léegi nag Faybor jot na. <laughs> Faybor <laughs> waaw parce sax ñoom moom macha allah euh, wax nañ ñu sax li xew ci local yi. Mm-hmm. parce que moo tax Bassirou amul mairie bi. Mm-hmm. parce que dafa am koo xam ni doom la ci gox bi tey jigéen. Mm-hmm. te yàgg doon financé jigéen ñi am fu mu leen jaarale. mais xam naa ni ñoom ñëpp tey. dadel nañu xam ni seen doom moo ñëw soxla mais mu nekk aussi un grand inspecteur des impôts mm-hmm. ci formation wam nee naa la parcours am ak parcours président Ousmane Sonko nekk parcours yoo xam ne mën nañ leen méngale mm-hmm. ci administration mu génn ci école yi gën a mag parce que nag tey bu ñu waxee tamit euh, euh, niveau amul niveau bu ëpp niveau boobu mu génnee mm-hmm. donc kenn ëpp ko lijaasa ci réew mi mais bu paree ci niveau boobu mu servir son pays nekk ci impôt et domaine Yakoufa, Yakufa, euh, Yakoufa, Yakoufa, fa yàqu fa. Mhm. yàqu fa de au contraire il a travaillé pour que nous mën a am suñu courant am parce que nous sommes ni Sénégal dëkku impôt la. Mhm. kon kooku ku fay liggéey rek dañ lay mais bu mu jógee ci il il a toujours eu de la fermeté et de la loyauté. moi mhm. c'est ce qui me marque le plus chez lui Moi, euh, l'image de cet homme loyal loyal à un projet mais loyal à un homme. Mhm. parce que si nit a amul loyauté envers une personne beaucoup de gens dénk un am problème c'est ce que indil lii ndaxte wax que yàlla du pour <laughs> mais de loyauté gis envers le président Ablaye c'est mhm. moo xëy na moo mhm. loyauté c'est la différence de Bassirou Diomaye avec beaucoup de gens la constance itam. parce que euh, en 2014 monter un parti politique euh, de l'opposition jiital ci président Ousmane Sonko ak li ko dal yépp te dawuloo te bàyyiwuloo nga toog nekk ci ginnaawam mën naa jàpp ni am nga valeur yoo xam ni mën nañ la dénk réew mi te tamit dama jàpp ni aussi Bassirou c'est un passeur. waaw ah c'est un euh, passeur on le fait passer pour waxoon naa la fi léegi dañuy ubbi buntu bi <laughs> dem ci fenêtre bi dugal si waa ji